أنا dajale li ñu mën yëpp bi ñu nuyoo ba noppi ma dajale waat lépp xam ni mu toll li nga fa jox ci addi yëpp damaa xam ni mu toll. ma ne sa Maodo yëkkati loolu sànq sama addi bopp ma. ma teg ko ca. dañuy demal ba kër kër gi yokk. am na góor boobu dafa tàng ba dafa jóg maanaam mu ne ma fii. fanweeri at ak nii maa ngi fi. nit ku ne aw na fi. waaye lii maa ngi koy door a gis. nga xëy dañoo daje ubbi ko fi sax sax. ñoom ñëpp mel noo xayante nii rek. dañ leen a jaaxal. te dafa mel ne ñu yanu woon nag. xëy na ñi ngi lay dégg. ñi tamit am na daanaka pour ñu gisub sëriñ ñi naan. damay ñibbi fan jaare oto bi. am na deux cent mètres. ñoom ñëpp day bépp mumloo. ba ma àgg ci oto bi. ñu ni sëñ bi rek dañoo bëgg lii at ma jotati ma ne jël ci sama xel am na de loolu yàlla doo ko ko noonu. nii feneen fi ci des. ci biir salaw la. ma daal di dem. ba ñeggee ñu lal benn benn kii rek lañ lal nii. xëy na boobu man rek lañ waajaloon sama mbir. ñoo ñëwee ba toog ba waxtaan geneen kilifa mbàkk mbàkk yi dugg si. mbokk la xam naa ko bu baax. maa ngi gis mu di ma niir di ma niir di ma niir di ma niir. ba agsi. fekk na maa ngi toog di waxtaan ma daal di waaj ma dem toog ba ci suuf. bi ma waxtaanee ba nag ma ne ko sëñ bi mën ngaa ñëw toog nii yow kat. mag nga ci man. waaye am na wet boo bàyyi laa ci am na wet boo maam laa ci man. xam naa ñi koy sëriñ sax dina ko xaw a jàmm ma ne ko noonu la demee di. ma ne ko ñëwal toog ndax sëñ Tuubaa tax. xëy na maamul xayaat moom mënu ma cee jëflante ku yàlla bind ci kaw suuf. ndax maamul xayaat moom leer la ko bàyyi ko ci jëm yàlla yi. kenn dox diggam ak yàlla. Ahmadou Hajara nag Mori Saadax la moom. taalibe sëñ Tuubaa yi sax mën naa ne ci seen boppam. di taalibe rek. waaye maa ngi xayaat. benn bindeef bu ndox ci kaw suuf bu nga ci mën a jëflanteel ku ku ku ku dem. ak ko fi nekk ñoo ca jëmm yàlla ji rek la mën a jëf. ndax ca la bàyyeekoo ci ca lay dem. loolu beneen mbir la. waaye Ahmadou Hajara mii nag moom. moo rek saa ndax la buy takk ndiggam fu mu toll. ñu ngi déet sëñ bi loolu dama ko waxee noonu man mooy ma déedéet toogal ci kaw ma ne ko déedéet ñëw toog sëñ Tuubaa tax. ndax kooku boo toppee genn wetam sëñ Tuubaa la genn wetam sëñ moom jaara mu daal di toog ci kaw mu toog la waxtaan ci sëñ Maodo Hajara sax day sant ci liñ fi tàmm na. mu kii de lii mu def nii ca maamam la bàyyi ko. ndax moom bu muy ànd ak sëñ Tuubaa ci bokk yi. boobu sëñ bi dana ñëwut ci moom. loo xam lu nit di tëj bëgg la. lu dul say lu dul baatin boo xam ne leeram yàlla nga xam yàlla def na ko ci moom ak coobare suñu borom nga xam ne suñu borom def na ko ci sëñ bi. dimbali leen ñu gëm ko waaye boobu gëm ko yóbbu. amul taw feex ak dimbali mënoo gëm sëñ Tuubaa ci bokk te daaw sëñ Maodo Hajara daa bokk ci mag ñi njëkk a gëm sëñ Tuubaa di ko topp. waaw ba muy gëm sëñ Tuubaa di ko topp boobu sëñ bi daa jóge Mbàkke Kajoor rek dikk Mbàkke Bawol. mu métti lool tàng lool coow li bari lool lu dem ñu di ko wax sëñ bi. ndax ay bokkam doo ko fa nekk. xam nga bu ko yàlla fee ñoom te ñoom amuñ ca dégg. mën naa jur lu bari. te sëñ Maodo Hajara bi sëñ bii de sañ ci Mbàkke Bawol ci ñu ànd ak moom la bokk. am na bis boo xamante ni li ma leen di wax mbaa yaa ngi koy jël ci Mbàkke Bawol. sëñ bi da koo woo. ñoo koy waxtaanee nii ba léegi. sëñ Tuubaa da koo war a ko Ahmadu mu ne ko Mbàkke mu ne ko ŋàbbal ma set léegi. mu ŋàbbal ko set léegi ak der bi. ñu dem ba ci tóokóor ba. së sëriñ Maodo Hajara defal ko mu julli mu mu jàpp. mu yeesalaatum jàppam sëriñ bi fu mu toll njàpp mu yees. bi mu jàpp ba noppi. sëñ Maodo Hajara dékkandiku naan. sëñ bi mu laalal ko sa jaade gi sëñ bi jublu penku julli bi mu jullee ba sëlmal ne ko ahmadou mu ne ko mbàkke ahmadou mu ne ko ba mu yett yoon mu ne ko dama laa bëgg a marale ak sa borom joxoñ ci penku bi dama laa bëgg a teg ci siraatal mustaqima marale la ak sa borom nee na bi mu joxeñee ci penku bi dafa mel ni dañ koo ubbil kaaba gi muy janloo kaaba gi moom sëñ Maodo Hajara wax na ni bi mu lim dund lépp ba ni mu génn àdduna fu mu kàbbaree bu ko sooboon jëm bi ci kaaba gi la koy teg ndax ni muy jàlloog moom dara du dox digganteem ak moom mu jóge foofee nekk fa ak sëriñ bi booba sëriñ bi daan riir ci ay jamono kenn du ko gis muy wër Tuubaa yooyu ci ñu ko daan jëli ak a wër ci la bokk ñu ko daan génne te lii ma lay wax ca ca yoonu ci ci ci ca njëlbéenu yoon wi la waaw boobu sëriñ bi sañ ci Tuubaa boo déggee waxtaankat yi ñi am liste bi fukk ak juróom benn ñi mu àndal Ahmadou Hajara moom doogu moo ci sant Mbàkke booba sëñ bi day sañ ci ñu gor Touba la bokk. ci ñi ko sanc it ci la bokk. ànd fa ak sëñ bi di fa liggéey. ba ni së sëriñ bi yeewi ko waaye moom musta bëgg dara lu may sëriñ bi. dem nañ ci sëñ Saliou Touré bu Thiès ngan googu ñu ñu demoon Thiès ma fa daan jaar daan ko siyaare. sëñ Saliou Touré ku ñu Pape Seck nelaw na ndeysaan sëñ Saliou Touré yàlla na yàlla yokk leeram. yàlla dogal na ci njàpp ca got. bi ma sëñ Saliou delsee ci otoom biñ ma bindalee ci sama alliwa. sëñ Saliou dañu nañ indi Baye Modou ak alliwaam ñu indil ma ak sama alliwa ma teg nii mu ne ma neel baa ma ne baa neel siin ma ne siin neel ba miim ma ne miim. mu door a woo sëñ Saliou Touré bi mu waxee loolu sëñ Saliou Touré mi toog mu ne ko nañ seet ku ku ku ko méngoo ci wàllu jàngale. sëñ Saliou Touré foofa laa ko fekk got koo gee fa la ma bàyyi bi ko sëñ bi yóbbu Thiès. sëñ Saliou Touré bi bi kii bëggee wax Pape Seck pour na ma nekk Kër Mbaye Fall ak doxin waat. ci bokki tali bi nañu ànd di góorgóorlu ci di liggéey sëñ bi ak jaamu yàlla. mu ne ko mu tàmbali di ko bëgg wax mu ne ko déglul nii la ko def de déglul. maa la ko gën a xam kii la maamam daan wax maamam ci laa lay tàmbaleel. Ahmadou Hadjara la sëñ Touba daan wax ni Ahmadou Hadjara jaaxal na ma teg na ca sëñ Massamba Touré baayam moom déedéet bàyyi sëñ Saliou Touré la. tur wi laa fàtte yaa jàppatut. mu ne ko jaaxal nañ ma ndax koo leen booleel ngir ñu jaayante ngir ñu ñu war koo mën a teg ci yoon dañuy ànd ak moom teel bi bu mu bu leen sëñ Touba booleel sëñ Modou Ajara day àndaat ak kooka ñëwaat ba ci sëriñ bi mu yeesalaat ak jaayanteem moom li mu daan wax sëñ bi mooy bëgguma dara sa jëmm ji rek la bëgg sëñ bi laaj na ko ay yoon yoon yoon loo bëgg mu ne ko yow rek moom noonu la daan dundee ak sëñ Touba Xaadimu Mustafaa mu ne ko kii sëñ maamam noonu la def ci sëñ Touba ba am lam ca am baayam door a dikk di mbokkum sëñ Touba sëñ Touba di baayam ci wet waaye di magam ci wet sëñ Fallu di magam ci wet di nijaayam ndax ki jur yaayi sëñ yaayi sëñ Fallu ak ki jur yaayi sëñ am di ñoo bokk ñoo bokk benn bàyyi di sëñ bu soobee sëñ Fallu moo jël sëñ boppam sëñ sëñ am di njariñam mu di ko moritoo ko tërbiyee di ko moritoo ko tërbiyee di ko moritoo ko tërbiyee ba sëñ Fallu yeewee ko keroog bis boo ko sëñ Fallu doon yeewee moom ñam ko doon boole dool kenn jërut ci bunt ku ne aw xer maanaam bu dem néegu ñax yi nga xam ne ay xer lañ ko defee ku ne rek fa nga jekku rek fa nga dóor rek génn ndax la leen sëñ Fallu dool ak lam ñu wax kon kooku xam nga tam noonu la mel nag doo njabootu sëñ Tuubaa gi fi fekkee lépp sëñ am di am na seen ngërëm doon murit saadex doon jullit xàqan sëñ am di quatre heures dana fekk ak daram bii ci biti ci nangoo jaamu yàlla jàng alxuraan jàng xasida waaye lu bi lépp lu bokk ci sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa rek lay xool caw xoolu caw leneen muy leen moom mii tamit daa doyloo wut loolee baayam def wala maamam noonu la laxasaayu bi ko baayam joxee sëñ Saliou noonu la laxasaayu ba sëñ Saliou gërëm ko ndax man bi may dugg ci loxol sëñ Saliou sama juróomi at matagut sëñ bi njëkk na maa yeewi ma ñibbi si jaayantewaat delluwaat mu ne ma mu door maa yeewaat ci at ma ca tox ca ne li nga doon bëgg lépp ci sëñ Touba son borom defal na la ko waaye loolu lépp taxul ma ne ca yoon wa nag di góorgóorlu fu ma dégg lu baax ci ku baax fu baax xeñ naa ko ndekete booba leerub ësël ga nga yàllay namm ci jaam bu mën a doon yitte ji nga amoon yëpp ci ci ron gaa yu baax yi leer googu moo war a fekk leer gi fekk quatre-vingt-dix-neuf ca xëyta la di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor gi leer gaa ngi fi woon de waaye boobee la fekk keroog néeg bi ma tëdd dafa mel ni dañ koo xotti leer bàyyi ko ci kaw goo xamante ni mënuma ko misaal benn doomu aadama te leer googu Tuubaa la ba njëkk a feeñoo feeñu waat ma Kër Mbaye Fall waaye saa suy dikk day mel ni néeg bi ma dëkk dañ koy xotti nii ci asamaan si sama jëmm ji day yëg ci asamaan yi li ma ciy yëg ak li ma ciy dund man ak moom rek la loolu moo waral cant yi ma di ko sant kilifa googee daal di wax ci sëñ Modou Ajara nam toppe woon sëñ Touba ak mooy ki xam nga li ma fi dugalaat daa bare waaye fekk maa ngi sa jataay boobee ak kilifa googee ma ne ko toogal ci kaw ma toog ci suuf mu waxtaan ci sëñ Modou Ajara yëpp ba noppi ñu dajalee nu addiya bi ñu ko dajalee ba noppi kee jox ma jox ko liñ ma jox man dama ko teg sama loxo bii yëkkitiwaat sans pause addiya tegaat ci ne ko addiya sëñ Tuubaa kon danañ xam ne loolu man yóbbuwuma fa sëñ bi ne ma ah sëñ bi kat géej gi daa am lool ndax sëñ boobu it yàlla dogal na dajawoon nañ njàpp ndal ba ñuy jóge got 83 di ñëw njàpp ndal moom foofa lañ ko fekkoon te te mbokk la it nag it ñu ànd dem fa ma dal boobu fa ma dal it yaatu na ndax appartement hôtel la bu mag boo xamante ñaari néeg nga fa salle bu mag lépp nga fa li ma soxla lépp ma nga fa ma ne ko tee ngaa ñëw ba mu ñëwee dal ma ne ko tee ngaa ñëw mu ne ma man kat am na ku ma xasoon dalal kële fële ba noppi ma ne ko ah kon nag noonu baax na ma daal di génnewaat ko ay parfum yu ma yore rek ay yu bari ay dàll ak yu bari yëkkatiwaat ko joxat ko ko àddee seen tubaab doona doona doona doona doona doona ñëw waaye ni waaye lii tax lu ci baree bari sawar gi jaxasoo gi du ma ko def foo am na ci ñoom dañoo dem ba buñ gisee ku sant Mbàkke rek dafa am bët bu ñu lay xoolee nu ñu lay gisee ndax dañu def lii rek moo la tax a jóg moo la moo la indi. fekk déedéet man yàlla dafa dogal maa ngi góorgóorlu ci ñu nu suñuy kilifa yare. di góorgóorlu ci coobare suñu borom bi nga xamante ni ci ësël la woon. mu def ko fi sunu kilifa ñu nu toq yar na it lim nu yare mooy nangoo liggéey lool ak nangoo jaamu yàlla lool. masan tey fee ma dem rek ci armée yaa di xool ay tool yooyu mënoon na maa yónnee. te duma demal sama bopp waaye jéego yi jaamu yàlla la te am na lu fa xew loo xamante ni ña ma ko siqal xam nañ ko ña àndoon ak man it xam nañ ko ci ñoo xamante ni ci yoon woo wii suñu borom ràmm na leen ci ràmm ci seeni bokk ci mbaaxul yàlla ak yi nga xam ne la ngay dox nit ki la may séen ci sayir la biiru da ko ëpp fuuf ba dem dayo waaw waaw loolu nag mooy tax ñun loolu mooy sunu dundin mooy sunu doxin. taalibe bi nag lépp lu mu seet ba jëfal ko boppam. taw fee xam la. ndimbalam la ci zahir ak ci baatin. waaye tey fii ne bi may ñëw fii bi may jóg di dikk fii wecceeku naa loo xamante ni yaakaar naa li ma ci laala bon bëriwul de. te boobay li ma jàpp mooy fi may ne maa koy jëlal sa bopp. li may jëfandikoo lépp li ma jàppoon ni mooy yëkkati nit jox ko mu togg lépp tegal ma ko fii su ma bëggee jëfandikoo rek ma def ko. waaye yoon wi dafa mel ni yàlla dafa leen koo jagleel. bi ma lay woo fekk ne am na ku ma njëkk a woo yàlla dugal ci jamono boobu yëpp ma jot ko. bi ma la woowee jot la rek nga am taxawaay boobu. ku ci ne mbiram yàlla moo koy def yàlla ki mu bëgg a dimbali. daf lay jëfloo. ndax foofu la nekk léeg-léeg man ne may am ak ñeewantu ci nit. waaye damay xam ne fii ku dox ku jëf jëm fi rek. yaa ngi jëf ci sa bopp. ci sa bopp nga ne de. ci seen bopp ngeen nekk. loolu la suñu borom dogal tawféexi tey. ak tawféexi ëllëg ci mbaaxam ak yërmandeem ak ndimbalam yàlla mooy def loolu ci jàmmam bu ko sol waaye nun ñii ñëpp sunu mbir day jàpp ne tey day jàpp ne ëllëg xam nga lu nu war a pas-pas bu dëggu te wér pas-pas bu sell bu wér kenn dëggu ak teggin teggin mooy lépp te liggéey bi ñu koy jëfal muy dëgg ci nun tañ bañ cee kooj dara bañ cee calcul dara bañ cee xalaat dara lu mooy moom yàlla rek xam ni moom la ñuy jëfal moom yàlla nag xam na li mu bëgg ku ci ne ci nun ñii yàlla xam na li war ci yow xam na li nga bëgg kon nag maa ngi leen di dénk na ngeen boole seen bopp te nangoo jaamu yàlla te nangoo liggéey te wékkiru ci yàlla te doyloo yàlla te maandu te rafetal te bañ a yàkkamti sabab lu rek anu war waaye bu yàkkamti dara di jiital sunu kër ëllëg it sunu kër tey ndax mooy des ba fawwu ci lu nëbb ak ci lu feeñ na ngeen wattandiku tooñ na ngeen daw ay xàq àq na ngeen koy daw te di ko wattandiku fu ngeen toll di wattandiku tooñ it fu ngeen toll yaar yooyu rek ma ragal ak tooñ ak àq dooma nag yàlla noonu yàlla gën a dimbali te gën noo jàppale waaw te gën noo sàmm te gën noo aar waaye lépp lu ñu ko defal day la ñuy réccu bu taw fi lam ñuy jural la ñuy réccu mooy lu teewoon lañ doon def ñu yokk ko waaw la teewoon lañ doon def ñu yokk ko ndax man kat danaa am yërmande joo xamante ni tey lu ma nit bëgg a defal may la naa la koy faral waaye ni ma xame ni ma xame taw fee xam ci jëmm ji su ko nit ñi xamee woon noonu bu doon man la duma ko nangu du ma nangu mu woyofal ma dara li ma war a def dama koy def ba mu jeex tàkk te du ma ci seet dara ngir bëgg ko rek waaw faaxi ranoo baati na yàlla nu yàlla dimbali saxal nu te rafetal te bokk nu defali mujj gu rafet bokki taalibe yi ngeen fi nekkal yëpp ak biddeef yàlla ak jullit ñëpp ak biddeef yàlla yëpp bu leen lor kenn ci seen wax bu leen lor kenn ci seen jëf bu leen lor kenn ci seen melo nangu leen a jaamu yàlla nangu leen a liggéey jàpp leen seenu njàmbur wattandiku leen xaq wattandiku leen tooñ yàlla nu yàlla defal mujj rafet te dimbali nu ci loolu yii ba mën na cee saxal jéggal nu rëcc rëcc yi ñuy gaar te li ñuy jaamu mu nangul na ko te fulal nu ko te laqal nu ko fi yàq yëpp jërëjëf